bu ñu amee ñeenti fukki at ak ñaar école élémentaire bu Teemanto Samba gis na ay génération yu fa soxeekoo si atum 1981 ñoom ñi màgget tey ñoo doon xeex ngir seen dëkk am école primaire tey seeni doom jàkkarloo ak ñoom ngir won leen ni duñu mës a tas seen yaakaar. biñ ko créé ak léegi li mu produire si ay cadre dama yaakaar ne ñun amuñu dara lu ñuy envier ay écoles yu nekk Kolda ay écoles yu nekk feneen sa boo xoolee ratio par rapport a ñi fiy jàngee ak li ñu fi réussir wax dëgg yàlla je pense que on a un taux vraiment très bon. Téemantu Samba nekk ab dëkk bi nga xam ne ni askan bi fee yeewoo am nañu cofeel ci école bi la dëkk nekk fi ministre Moussa balde ak yeneen i cadre cosaanoo tey jii ñu gis ne seen ay waajur ñoo tax ñu toll fu ñu àgg tey. bu ñu ñoom dañ ne ñun ñoo demande école. donc il faut suñu xale yi jàng il faut ñu sacrifier suñu xale yi jàng eh ñu dugal ñu baax ñu si biir bien vrai que nag loolu indi woon na fi ay conséquences yu difficile puisque am na benn période boo xam ne vraiment c'était difficile que parents yi mën béy lu ñu mën a dundee il fallait que vraiment ñu jaay euh, seen jur yi pour mën jënd lekk. fii amul woon école ñoom sax zone bi yëpp amul woon sax kuy jàng suñu parents yëpp kenn mosul jàng mais dañuy ñëw ñu ne ah, jànguñu mais xam nañu ëllëg ku jàngul doo fi am place il faut que ñu yóbbu suñu xale yi école ci ci village yi. Mamadou Saliou Balde nekk ki njëkk am diplôme si école mu nekk ab royukaay comme ni ko nouvelle génération yi. di ko xoolee tey mu ñàkk bakkanam askan bi fay yeewoo di ko jooy ñu fas yéene ko rendre hommage profité si nag ngir sargal ndongo yi nga xam ne ñoo ràññeeku si at bu ñu génn laata ñuy xalaati lal ay pexe ngir résultat yi gën a amélioré wu foofu ca Téemante Samba